yi doon bëre bëre nañu de. ah. waaw combat dañu dañu topp waaw dañu dañu dañu dañu tolloo doole. ndax nga booy ndaw yi ñoom duñu ñu du ñu négocier ay combat. war bi soufflé rek. dañ ciy dem kaan yi. non non non lamba lamba xam nga génération bi dañuy bëgg a pour dañuy bëgg a être devant la scène am na mooy tax moo tax ils ont du mérite booy yii nii génération bi ils ont ils ont du mérite quoi. <laughs> mais mais mais le Bordelais. waaw mais ñu ngi lay ziare. mais mais mais tey sa poulet boo war a bëri Pape Ndoye wala ko waajal. waaw ah, Pape Ndoye xam nga suñu xam ne avenir bokk na ci bokk na ci booy yi nga xam ne parce que parce que dañu am suñu yaakaar te mi ngi koy pourfait. ñu koy ñu koy wane muy muy joxe ay ay ay résultats yu baax te wax dëgg yàlla loolu nag liggéey rek moo koy liggéey rek moo koy joxe te booy bu séeréer la il fait partie des leaders yi ëpp si am bu gën a séeréer ci Idrissa ba pare innocent la xam nga mbër moom boo bëggee dem ci kanam bi foo nga nekk innocent. foo nga dof dof dof. waaw non foo nga innocent non vrai innocent nekk ci yow nga xam ne concerne le sport rek parce que sport dafa fiir àndul ak dara sport ak jàng ñoo yem dañu fiir.

bu ko yàlla bu yàlla suturaalee rek bokkuñu bokkuñu ñoom ñaar. bu ñu ñëwee ci ñoom le Bordelais yi. Gris de Fass fan la waaw mais xam nga temps yi moom wax dëgg yàlla boo gisee tey estade bi tey nga xam ne tey euh, lamb malgré que malgré les nga xam ne tey mi ngi. ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci dëkk bi nga xam ni euh, neer yëpp a taxaw neer yëpp pour les neer sont tendus malgré loolu mais làmb suñu suñu mbiru bopp la ba fi ñëwee doo sentir di sentir y' a y' a y' a deux jours trois jours quatre jours dëkk bi amoon na niveau bu mu toll am na lu fi xawoon te yu mel noonu dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla dàqal ñu xeetu problème yooyu parce que ñun parce que dëkk Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du Sénégal Sénégal bokk na ci 25 pays yu gën a pauvre te mu jàmbara muñ ci jàmm rek te billaahi wallaahi tallaahi jàmm moo gën leneen lu jàmm boo xoolee fan yii bari na ñoo xam ne tey seen ay capital seen ay capital bi nga xam ne kenn xamul nuñ def ba am ko manifestation yi problème yi am seen ay oto loolu lu ko jar daji seen place ah dañu daji seen place daji seen ay place lu ko jar les politiciens nañu may jàmm nañu may nañu nañu bàyyi nañu nañu may dëkk ak salaam. en tant seen politique te may ñu jàmm parce que jàmm ci la xaj. Sénégal mérito na barki Cheikhou Tidiane Sénégal mérito leneen lu lii politique lu ndombul la dañ ko war a def d'une façon zen. bu bañ am ay arrogance bu bañ a dem am ay. violence bu bañ am ay mbuq ay ay ay. ay ay ay ay ay ay ay jaay doole ay ay ay ay ay ay instrumentaliser nit xam nga yooyu dafay indi ay ay problème ci dëkk bi on a on a pas besoin soxluñ loolu parce que barki Seydina Mohamed dëkk yi nga gis yëpp moom ay jafe-jafe yëpp cause lii la mooy bukkante bi jaayante doole bi te politique mbir mu mbir mu la ci kaw ñu ci kaw politique Sénégal la ngay gis ñoo xam ne ñoo bokk kër waaw da ngay gis ñoo xam ne mais bu ñuy wax ci politique kii far fi fii dañuy wax ba mu tàng jër te day nice et pourquoi léegi ñu dañoo war a jël exemple ci lamb la ma doon ñu bëgg def politique boole ci animosité parfois gars yi da nga leen ñu def propos yoo xam ne tey da ngay mel nga yow da bañ du Sénégal da gaa yi defaraat seen jikko da gaa yi defaraat seen jikko loolu c'est Sénégal barki Cheikhou Tidiane te loolu ñun innocent yi rek ñoo ci sonn day gis xam ne day gis koo xam ne xamoo comment il a fait pour avoir capital bi ñuy liggéeyee ci benn takkusaan billaay wallaay léppam na forage loolu te fii Sénégal gaa yi dañuy jënd rek gaa yi dañuy débrouiller rek am na gaa yoo xam ne actuellement nii utaat amaat départ pour defar defaraat ay seen ay magasin wala yooyu yooyu coono la kon nag ñuy seetlu cër les politiciens dañuy bàyyi xel dañuy bàyyi xel ñii ngay gis ñun yëpp nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mos ko exclure gis nga jamono ñi problème yi am nii billahi wallahi tallahi sayyiduna muhammad mosu ko exclure fekkee na jamono ñi problème bi problème yi daan na am ci ay jamono mais mosu ci daw parce que yonente bi ci jàngaleem moo na سمفان من أمتي إذا خلقوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء مشان واحد وقول سيدنا محمد من الدك كل مو استابل نعم نيجي نغير ندخل يون دك بنجيب دخل يون ندخل يون دك بنجيب يون نعم لا نيجي نغير رسول الله من الأمراء moy le gouvernement wal fuko ak borom xam xam yi suñu borom xam xam moy suñu ndidi suñu suñu kilifa diini on se pose la question ñaar ñooñu ñoo mën a doxal dëkk pour mu jag te ko ci yo raay billaay wallaay Seydina Muhammad nee na al umara wal fuqahaa mooy le gouvernement ak borom xam-xam yi borom xam-xam yi lañ am muy suñu suñu kilifa diine yi kilifa diine yi ñaar ñooñu bu ñu tegee lépp yoon di wax di di yëkkatindoo di dóorandoo billaay dëkk bi day stable Sénégal kenn la kenn la gëj Sénégal kañ la gën a stable. dañ koy defaraat. defaraat jikko yi. Sénégal ñoo ko bokk. defaraat toogaay yi. nañ ko naysal nañ politique bu ñu politique système bi nga xam ne tey ci yeneen dëkk yi les pays limitrophes du doon dégg sous région bi nag lañ doon gis. système yi xam nga buuxante beeg.

nga euh, amuñu ci euh, ah, heure bi waroon na heure waroon na fekk mu ñuy wax leneen waaye nag bon dañu ay jullit lañu bu amee dañ koy jël lépp xam ni yàlla la sol heure bi waroon na fekk ñuy ñuy xool ndax dañuy bëriwaat ci saison bi waaye nag ñun nag li yàlla dogal ci nangu amaana moo gën ci ñun. gënuloo ci ñun yàlla bu ko doxal doxalee waaye nag lépp dañ koy bàyyee suñu borom rek xool ak avenir moo nekk suñu kanam. ñaari xale bëre bari ko démb diggante Reug Reug ak nga xamante ne bii mooy Sa Thiès ñu nekk ñaari xale ya nga xamante ne bii combat déclenchement lañ doon bëri Sa Thiès bëree na yàlla may ko ndam est-ce pare nga pour jël ci xale yi. waaw loolu moo moo taxal sama combat Ama Baldé taxaw parce làmb làmb trois génération la bëri say suñu rakk yi ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci brillant wane wane wane wane lu tax ma bëri yow damay bëri yow waxuma booy yëpp dañu war a bëri parce que ay combat challenge ay Sa Thiès ay Reug Reug ay ay ay ay ay ay ay ay Ama Baldé génération boobu foog ñu foog ci la ñu bokk ci biir xool nag ñoom dañuy garaaw garaaw la wala garaaw loolu may neexal làmb kon fu mu toll nii bu ñu joxoon avance Sa Thiès nga jël. même avance Reug Reug parce que booy yooyu ñooñu loolu loolu loolu noonu daj noonu noonu noonu noonu noonu noonu ëllëg noonu bis yi cinq ans ëpp na sax ñu xëcc leen ñu bokk. ñu bokk bi xam nga ci ñoom de. gauche droite yaa ngi ci ñoom barke Rasulaay. bilaay ni ma gisee seen combat bi passé nii ci ñoom de. waaw gis nga ne am mën ngaa ci ñoom. non dama la non ma gisee nii. xale yi wax nañ gëri. non bëri nañ ay fukki nii rek mais bagage yi am na yu des de. ah billaay wallaay parce que Xalifa Malick yoo xam nga loolu. mais mais mais takkusaan boobu bi nga ñëwee keroog gis stade arène bi ni mu taaroo loolu yëpp. ñaari booy yooyu dañu am gannaaw dañu am gannaaw te pare dañu am mbooloo mais nag bari na xew-xew yu ci am avant et après euh, euh, c'est à déplorer làmb làmb soxlawul loolu làmb làmb lu soxla famille su jeexee jeex na li tax mbër. bu signature contrat di am lu war ko rafetal ndax bu làmb ji jeexal sport animosité waru cee am te à chaque fois damay pointer du doigt ñi ànd ak mbëri parce que léegi ñi ànd ak mbëri ku ci nekk da nga bëgg a nekk star bëgg bëgg wone bëgg gis non te parfois dañuy da ngay def loo xam ne sax mbër bi sant loo et c'est pas bien offre yi lu bari gis nga bari def ay làmb yu yàqu yoo xam ñi ànd ak mbëri ñoo ko bi sant loo ko ñoom mbër bi bu amee mbër bi ak ñaari mbër yi bu ñu amee lu ñuy ñaar ñoo ko war a ki ànd ak amul ben droit di jël dara di soti mbër mi ñaka jaru ñu ak ali sey be ko ya ànd do mbër mbër boy ànd mu moom koy dimbali parce que mbër ñi ànd ak mbër c'est toute une équipe ku ci nekk da nga wara xam yow su rôle bi nga wara jouer lay kene xam lu sa entraîneur ak ki yor mystique entraîneur day dog day da wara dog xaar ba mbër bi wara a bu jor serviette ak ndoxam mais li entraîneur da ngay gis ñuy lag ci ginaaw mbër mel ñor ñoo il faut que ku nekk xam sa place loolu mooy loolu mooy tax. lamb du déborder mais liggéey boobu nga yaakaar est-ce que écrit yi amuñu wàll. ca base ba la war a passé am na ci part mais le lutteur en personne parce que mbër bi mooy kilifa bi encadrement bi mbër bi mooy mbër bi mbër bi mooy kilifa bi mbër bi mbër dafa war a di avant le combat dafa war a di tooga sax bi briefing ku ci nekk mu xamal la sa rôle ku ci nekk nga xam yow rôle bi nga war a joué demee stade ku ci nekk mu tegal sa place entraîneur soxlawuma la ludul arbitre woo ñu si dégg nga teg sa chaise wax ma li nga wax jël sama projet dans solo bi kii yor mystique bi ku ci nekk am nga loo war a def kii yaa yor benn butéelu butéelu géew ga yaa ko yor ku ci ku ci nekk am sa place léeg-léegi léeg-léegi parfois ñëpp dañuy bëgg nekk ay star ñaaru woon formation formation. non la parce que tamit am na lépp mënuñu ko former am na man mii di wax ak yow barki Cheikhou Tidiane avant le combat billahi wallahi ku nekk xam li nga war def. billahi wallahi organisation la. non parce que lamb nag ci def ci ay at ba parce que yi def simple loolu boo gisee lamb yu bëri combat bi passé boo xoolee géew gi yàllaa ci def sutura lamb ji mënoon na tas mënoon na mënoon na mënoon na taj na ay leçon lañ effectivement loolu ay lës mu laa may keroog regret regret Sa parce que Cheikh Tidiane mënoon naa toj bu toj lu ñuy wax defati nañ seen mën yi en plus arbitre yi nañu vigilant bu yàqu-yàqu amee comme que saa yu mbëri defee naka su noonu ñu dóor ci table bi bu mbëri bu yi juumee dañ naan juum parce que arbitre ay nit lañu ay ñoo far bu ñu juumee keroog arbitre day juum keroog arbitre day juum bu juumee dañ naan juum buñ ko sanctionné administrativement ñu xam nga ñu xam sen sen je reconnaître na arbitre moo parce que arbitre nit la arbitre nit la te arbitre dina len sen juge di dimbali il y avait trois juges abi bo xamné presque def na ay quelques secondes waji tuddu ci kaw waji te téye ñaari gañooy nga nan leer nak leerul et dañu ni var var bima koy wax ak légui ça fait 3 mois dañu ni var var c'est pas compliqué ñu ni var ci la dépassé nañ ci cadre dépassé nañ fu ñu lamb di amé ay werante ak am naa amul parce que li ñu li ñu làmb li ñu ci war a améliorer bari na en plus di am contentement trop wax dëgg yàlla ça fait plaisir ah yàlla na yàlla defal jàmm. et yàlla Sénégal am jàmm. mais forme bi lan la xale jàng di daaf di fanaan parce que nag làmb yàgg nañ ci sport boo ci amee plus de vingt ans euh, am nga ci xam-xam am nga ci am na ci loo xam ne dañ am na ci loo xam ne dañ que war nañ mën a gérer suñu ay li ñu dese suñu ay bagage suñu ay arme di ko gàtt kon ngelaw fi di cons ah non yooyu c' dans l' esprit su dañ koy màcc xam nga dañ koy di ko tàngalaat rek tàngalaat mu ñëw mais encore en en plus yàlla yàlla yàlla Sénégal am jàmm surtout ça billahi lu te mën di am lu dul jàmm ko jaay ko barki Sénégal war nañ dépasser étape bi mais ban mes ban message nga lancé xale yi génn di taal ay pono di def jaadu non xam nga tey lu am euh, xale yooyu ñooy ñooy ànd ak mbir xale yooyu coow bari dañuy xool am na ñoo xam ne c'est pas des manifestants c'est des malfaiteurs. da nga xam dañuy dem daj guddi ñu jàpp ñoo loolu du manifestation. on gis nañ ci TikTok beeg gis nañ ñoo xam ne tey ay guddi gi jàmbur lañ dem daj loolu lu mu jotee manifestation. dara. c'est du vol loolu loolu loolu affaire de délinquance loolu du manifestation manifestation bu da nga am lu la naqari ngay dem di ko di ko wane mais boo demee def boo demee ubbi magasin jàmm daj ko dugg ci biir loolu sàcc la sàcc la loolu et loolu c'est des choses à déplorer ñun ñun jeunesse jeunesse su tey bii mentalité boobu war ko ko weesu ko war a weesu xam nga dañuy jiital ngor bi xam nga parce que li ñuy wax tubaab naan le malheur des uns le bonheur des autres am na ñoo xam ne yàkkamtuñu lu dul dëkk bi yëngu dañ profité aussi ñooy ànd ak mbëri ñooy ànd ak fépp am na ñoo xam ne tey lamb ji indiw leen ah. lamb ji tasee lu ñu romb ko moom lu ñu romb ñu faxas ñooñu ñoo ñooñu ñooy ñëkk ñooy ànd ak mbëri ñooy ànd ak politiciens yi événement bu am ñooy toog bu affaire yi tasee ñu dugg ci bisu bopp la jeunesse bi delloo seen xel yooyu mais xamoo euh, euh, mbër yi ñu si ëpp am na si ñoo xam ne yaakaar du làmb te dañu am ay boo xam dañ ko engagé pour mu def si ci benn période bu sant ko sal boulot si loolu am na si ñu bari ñoo xam dañu yor seen carte professionnelle di nekk ci am am na si ñoo xam ne dañu ànd ak euh, dañu ànd ak ñu nekk ci opposition bi am ñoo xam dañu ànd ak pouvoir bi yan mais épisode ñëpp duñu ay mbër ñëpp ñëpp ñëpp c'est pas des lutteurs parce que bu ñu rek ñu ne la ci mbëri borom les gros bras foo tourné ñu ne les gros bras c'est des lutteurs non non non mbëri mbëri ñu si ëpp dañu am yor seen carte ay liggéey la ñuy def formation garde rapprochée. non am seen ay diplôme ñu sécuriser nit mais mbir euh, bi ku ne mën na ko nekk ku nekk ku xamul sa bopp xamoo li nga doon amoo ay sœur amoo yaay boo ci famille bu baax mun nga ko def mais loolu nit dëggantaan insensé bi def loolu à chaque fois yu mel ni saa yu amee nag bon mënuñu wax ne tous les lutteurs c'est des parfaits li am ci ci ci domaine yëpp ci ñi nga xam ne seen xel ñi nga def naka sulu noonu loolu c'est partout mënu mën je peux pas être l'avocat de tous les lutteurs nous sommes une association association bi nekkul mbër yëpp ci bokk mais ñi nga xam concernant association bi nga xam association nationale des lutteurs du Sénégal dont je suis le président am nañ suñu règlement intérieur boo xam ne wax dëgg képp ku bokk adhéré am carte membre ñun nous avons l'obligation tey nga tegu ci charte yi nga xam ne nous règlement intérieur C'est l'association au cas où si toutefois si toutefois si toutefois Le association nous avons l'obligation de saisir le